mbéj yuy dal ay chaise yu ñuy sànni xeex bu metti ci biir député yu parlement bu Sénégal daal dina am alxames yamoo woon ak benn fan ci weeru décembre bi ñu nekk ca biir l'Assemblée nationale ba li ko indi moo di ne ay wax yu jubee ci bile député di Amy Ndiaye Gniby ko ci ab chef religieux muy membre ci kujje gi kii di coordonnatrice départementale jigéen ñi bu Pastef fii ci Thiès yéy na yàbbi ci bile mbir dama koy ñaawlu la violence bien benn forme bu baaxu ci waxuma la violence physique sur une femme dama koy ñaawlu bu baax a baax a baax duma ko mës a cautionner mais juste ajouter que violence bi conséquence la dafa am cause La violence verbale aussi moo jiitu bu physique sur, sur Amy et violence verbale bu Amy Ndiaye sur sur euh, des gens de pur moo ko jiitu mais taxul aussi door war a mën a am ci diggante bi Euh, li ma ciy wax mooy Amy Ndiaye victime la man victime laa ko jàppe ndax li ma leer ba leer mooy ay góor ñoo nekk ci ginnaawam ndax à chaque fois am na yenn combat yoo xam bu ñu koy mënee jigéen bi gën a pànk en moom la ñuy jiital nekk ci ginnaawam su ko defee moom mooy wax moom mooy def moom mooy indi ay problème voilà du coup moom aussi bu amee lenn lu ci lu ci xew rek ci kawam lay ñëw donc ñun jigéen ñi aussi war nañu yeewu ci yooyu xam ni kenn waruñu def objet kenn waruñu instrumentaliser ndax dañu am xel am xalaat am taxawaay au même titre que les hommes donc bu ñu nangooti benn góor làqatu suñu ginnaaw aussi duñu mën a loo yenn combat yi di masaw Amy Ndiaye bu baax mais di masaw aussi député de Yewwi je sais que coow li bari na ba bu fekkoon lu ñu war a defaat la duñu ko duñu ko defaat duñu ko defaat peut-être que elle les a poussés à bout et ils n'ont pas su vraiment se se retenir. c'est partagé fi ma koy njëkk a commencé mooy président assemblée nationale nga xam ñu ko fa rek pour pour pour boo beaux yeux dañ ko fa teg pour mu war a mën a gérer assemblée bi euh, gérer député yi fa nekk yépp nga xam ni partie bu nekk dañ jóge ñëw mu yemale leen au même pied d'égalité xam ni kilifa la dafa war a tëdd njaaxaanaay te à chaque fois damay wax ni soo artuwul di nga àtte peut-être Amy Ndiaye bu bi mu saaga su ko artu woon peut-être xëy na dina apaiser ñee tuuti ba situation bi du mën a dégénérer mais moom aussi dafa manqué tuuti poigne pour mën a tey assemblée bi nga xam ni dafa dafa bouillante cette fois-ci. ba tey muy àdd ci doxalinu suñu député yi nga xam ni mën nañu ne image bu assemblée nationale daal di nañ ko tilimal. si si si au-delà de l'assemblée nationale boo rombee assemblée nationale image Sénégal sax mën na ci yàqu te foog naa ni chaîne étrangère boobu bi instant bi ni ngi ciy wax. CEDEAO wax na ci chaîne africaine boobu bi ni ngi ciy wax rajo boo ubbi moom la ñuy wax. donc au delà de l' assemblée nationale Sénégal si boppam du image bu rafet ci ci réew mi donc euh, voilà noonu la demee man ma jàpp ni war a waroon nañ ci sorale peut-être que li ñuy def ci biir assemblée du yem ci assemblée du yem ci ñoom député yi. ko laalaale ndax image bi nga xam ni xëy na xaw nañ ko égratigner tuuti ci agissement yooyu nga xam ni mi ngi noonu bi ñu koy def xëy na seytaane dikkoon na mais aussi cent froid ak yar ak teggin. foo dem rek da nga ko fa war a da nga ko fa war a yóbbu que ça soit du côté de Amy Ndiaye ci yar yi ak mais sans froid du côté de des députés de Yewwi. ana ban doxalin la député war a yore ci biir hémicycle bi moom mi lay daal dina ci àddu. moom xam li ko fa indi rek xam ne yow du parti moo ko fa du du du bu xasee ba dugg. biir assemblée nekkatul depuis Macky wala depuis Ousmane wala depuis Serigne Moustapha Sy wala député député député keneen député askan wi la. parce que askan bi ñoo la woolu woolu list bi nga nekkoon voté leen pour nga représenté leen yow boo demee ba ci biir au lii nga représenté askan wi yow dangay toog ngay déglu buñ tuddee sa leader rek nga jóg saaga buñ tuddee sa kii nga jóg xaste aussi ba finalement yow loola fa yóbbu woon sax daanaka dootoo ko def yow dàggasante ku laal sama leader ma laal ko ku tudd sama kilifa ma ma xeex ak moom loolu moo la fa yóbbu ba sa mandat après nga dem. te loolu foog naa du taxawaayu député ci ci assemblée nationale. ay fan ngi nii wax ji daal dina bari lool ci biir l'assemblée nationale ba ndax yile kàddu yu fa yëkkatiku ñu jëmale ko ci ki nga xam ni mooy Serigne Moustapha Sy xaxe ci kujje gi nekkul député waaye mu nekk nit ku am daraja ci Sénégal.